benn tesalonik saar juróom waaye mbokk yi ci li jëm ci jamono yi ak waxtu yi loolu di am matul ñu leen ci bind dara ndaxte xam ngeen bu wér ne ni sàcc di ñëwe guddi noonu la bésu borom bi di ñëwe fekk nit ñi naan lépp a ngi ci jàmm ba ni leewu booba musiba bett leen ni aw mat di bette jigéen ju ëmb te kenn du ci mucc waaye yéen mbokk yi nekku leen ci lëndëm ba tax bés boobu bett leen ni sàcc ndaxte yéen ñépp ci leer ak bëccëg ngeen bokk bokkunu ci guddi ak lëndëm kon nag bu nu nelaw ni ñeneen ñi waaye nanu xool te maandu ndaxte ñiy nelaw guddi lañuy nelaw te ñiy màndi guddi lañuy màndi waaye nun ñiy waa bëccëg nanu màndu te ràngoo ngir xare bi ngëm ak mbëggeel muy kiiraayu dënn ak kóoluteeg mucc muy mbaxanaam xare ndaxte yàlla jaglewuñu meram waaye mucc lañu jagleel ndax darajey sunu boroom Yeesu Kirist deyal nanu ngir nu mëna a dund ak moom bu nu nelawee ak bu nu nelawagul kon nag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 kuy sàmm kóllëre la te dina ko def mbokk yi buleen nu fàtte ci seeni ñaan nuyul leen nu mbokk yépp ak saafante bu laab maa ngi leen di dénk ci kanamu borom bi ngeen jàngal bataaxal bi mbokk yépp ne yiwu sunu borom yéesu Kirist ànd ak yéen